الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu del ci waat ci 1527 bi awnillahi E, tollu woon ci jamono ji nga xam ni politique bi tàmbali na sàjji ba fitna tàmbali doonte ci màggal gay gàmmu gi ak lu ko jiitu kilifa yi ñu ngi doon avertir nit ñi di leen dànkaafu di dànkaafu ngóor gi di dànkaafu mbooleem parti politique yi waaye mooy la woon fawoon la nar a jaaraat lu nag ñu nekk ci wax eh, ki ñu war a tànn nii la war a mel bu la melul jigewu ko sax yow kooku noo koy tànne ba ñëwoon nag wax ci eh, xutba bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam mujj xutba ba war na dugg nag ci xutba bi nga xam ni ki jëkk a wuutu yonent bi jëkk leen jiite muy Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu foofu lañ toll woon démb ñu doxale fi benn mawdu rek bu doon jàngat ñi nga xam ni dañuy wax ni dañuy jàngal nit ñi waaye buñ ñëwee di jàngal ki ñuy jàngal dañuy fexe ba bonal li mu nekk muy tarixa ba mu ragal ko ba bonal ña ci nekk ñëpp loolu bari ci dëkk bi lool ñu gis ci ay ay ay ay jeexit ñu doon lool ñu doon ci bàyyi loo xel nit ñi waaye bu fekkee dangay ngay tànn wala ñu lay tànn noonu lay ay jullit lañu te moom la doon incha allahu moom lañ bëgg di ko doon ba moom la ñuy faatuwaale allah kon bu ñuy wax dafa war a jullite laal suñu leader nag bi nga xëy noonu naka jekk moom mu sa tànn mooy sayyidul xalq awaluhum wa axiruhum muhammad ibnu abdullah waaw moom da doon préparé jullit yi di leen defar ba ñoom ñépp kenn ku ci nekk bokku sa moroom foo juddoo foo yaroo bokku leen sax ay aada ak seen ya ngeen nekkoon continent ya waaye mu fexe ba dajale leen ba laata mu fi jóge ñoom ñëpp ñu niroo am benn pas-pas di jëfandoo di tegandoo ñoom saxaabatul kiram loolu nag buñ demee ba génne ko faxas ko nag ci kii fal ak ki ñuy fal far farxoo ak réeroo ak paccoxoo rek faw daa moom mooy am ci kaw suuf bu boobaa mooy ni système yii nga xam ni dafa dafa dafa dafa safaanoo ak yàlla tëral dafa safaanoog ak sunu dund parce que sunu tabia dafa am lu mu laaj dafa am lu mu laaj buñ ko ko xañee nag indi loo xam ni yeneen tabaa ñoom ñoo mën a dund loola te lu am benn jeexital bokkul ak senegal gi mbokk yi ci yàlla euh, nun ay jullit dañu gëm ni dañuy faatu bu ñu faatoo dañ ñuy dekkal dañoo bëgg dekki dem aljana loolu lañ bëgg dañoo ragal sawara gëm nañ ni yàlla mi ngi ñuy contrôler lii muy def nii li ñuy def nii moonu ko gën a xam xamuñu kañ lañuy ñuy faatu te bu ñuy sañal bu ñuy faatu dina fekk lu am mujj gu baax mut gu rafet alislaam nag ci loolu ci la nekkoon nag xoolal bi muy melal nit ñi àdduna mun leen adduniyaa daaru balaa in wa mansiratun bulxamatu wa ana xat nusaat an an nufuusa soada waaye wan tasaat bi kurihi min aydil ashqiya fa asada naasu bi a nag arxabahum anha arxabahum anha wasaum biha nag arxamuhum fiiha wal iyaasu billah hadis bu gudd la wala boog ah, xut boobu xaw a gàtt la bala loo ñëw ci li Aboubacar waxan moom biñ ko falee dañoo bëgg rek wone rek alisalaam ni mu defee saxaaba yi ay modèle parce que àdduna buñ ko bu buñ la ko exposé expliqué la ko nga ba nga xam ko comprendre ko moom du la mën a tromper yow nag yooyu sogoo mën a kon jiite nag contraire bi moo am léegi ñoo xam ne àdduna moo leen tax a jóg ndax moom lañuy tabax moom àdduna la ñuy tabax de ñu tekki suñu bët seeni wax ak seeni jëf lépp lépp kon ñoom dañoo safaanoo ak système bi nga xam ni ci la alayhi salaam doon tabaxe ñoom ay ay leaderam ñi ñu war a na tànn ci ñooñu ci la doon tànn lu tànn ngir kii moom dafa ma jege tànn ngir dafa ma neex déedéet dafa lay tànn ndax lan yow yaa man lii mu leen daa aduna këru nattu la de waaw këru ay balaa la ak ay coono mu ni nag yàlla da koo nocc ci bakka bakkani ñi war a texe bokk am na ñoo xam bëgguñu àdduna te mënoo koo xam ci ñoom tax daanaka boo bu fekkee amoo dara ci basira nag waaye boo amee dara dara ci basira di nga gis ni kii li ko mbooloo mi topp li muy bari bari bari kii dëddu na àdduna ci jikko jëla nag ci jikko jëla bokk yi waaw benn xakim lay wax ni booy lekk lekkal li nga bëgg waaye booy solu solu li nit ñi bëgg nga solu waaw bi maanaa da ngay gis sol lu seer lu rafet nga laa diw mii de wala sëñ diw mii de moom dafa bëgg àdduna déedéet fekk li akim boobu wax loolu la jëfandikoo ak it nit ki bu joxee boppam bu joxee boppam gëdd ba saa yoo ko seenee wax dëgg yàlla sopp ko waaye xolam ba moom eh, xam na fam ci yamale taaru àdduna bii ngeen di gis am na lu ko lay caay am na am na lu ko jiitu mbokk yi loolu nit kon dina mel noo xam ne nga jàpp ni dafa bëgg àdduna fekk déedéet àdduna néewul ci biir xolam alislaam nag ni kon àdduna moomu mel noonu nga xam ni dañ koo teg ci loxo yi ñeen ñi nar a texee di mu ni ki gën a texe ci nit ñi nag nee na mooy ki am xemmemteef loxo yi dafa jël àdduna waaye ki ci gën a texee dina mooy ki xemem teefam nekk ci àdduna waaw gis nga ko fa as'ala naasa biha arxabahum anha waaye wa ashqas wa ashqahum biha arxabahum fiha gis nga ko nee na kër la goo xam ni këru alku yomb na fi lool waaye tuubaa day la ab di ni fi rabba ñeel na nee texe ñeel na jaam boo xam ni mi ngi ci àdduna waaye dafa ragal boroomam gis waxal la ba sa sawatuhu mi ngi tuubal boroomam rek waaye not na bànneexam ba bànneex du ko def loo dara dara dara njëkk muy génn àdduna di dem alaxira gis nga kon bu bu wala bokk xutba bu bu alislaam waxan ko di melal nit ñi àdduna am na beneen xutba bu mu def ci dawloo nit ñi àdduna boobu it eh, da ci lu xañ ñu ñëw ci bokk la xutba bi mu def nga xay mooy ajatul wadaa ajug tàggatoo la ndax ni mu waxee ñoom at moomu ci la mujj at aj awaa aj gi dellu siwaat defe naa ay juróom ñetti weer yu mel noonu soriwu ko mu wàccub liggéey nga xam ni moom da doon ñoom kon kooku nag dafa préparé nag saxaabatul kiram taxan nag ñu matan nag li ñu doonan waaye suñu njiiti léegi yii lu la ci waay wax ba falu bu doon lu weex lu ñuul kukk kukk kukk yow ngay dund ak moom su ko defee nga naan su ma yëgal su ma yëgal su ma yëgal am ñennet minorité bi ci biir nag ñoom tàbbi seen aljana waaw ñoom seen bopp donte bokkuñu woon sax ñi def effort ba far waa jooju waaye comme jigéen nañu ko ci wàllu deret wala ci wàllu nangam wala seen kook jigéen na ko yooyu nag jëmul fenn mbokk yi jëmul fen waaw kon alisalaam moom foofu la jaar ak gaay yi waaye nag bu ñu ñëwee ci euh, Abubakar Siddiq moom sunu boroom def yonent bi alayhi salaam wàccu liggéey nit ñëpp jaxasoo mu amuk dal booba lañ tàmbalee xalaat ni kon kii moo wuutu sallallahu alayhi wasallam moo koy wuutu ndax ñi gën a am rigueur ku mel ni Omar xam ni alayhi salaam da laa wax ni nangam yenn saaba yi ne ko waaw loolu day moom Omar ñëw ne ah sang bi ma day nangam laa gisee daal di beru moom ci gisam boobu alxuraan ñëw ànd ak moom Omar moomu nga xam ne ba muy gàddaay moo dem ci euh, euh, waa Quraysh ni leen eh dugg naa ci diini ci maa ngi gàddaay gaa yi sot ko dóor mu fayu waaw nëbbutuwul Omar moo xam ne ba mu duggeet dafa daal di fexe ba euh, bokk ci doonte fekk na fa lu mat fanweer ak ñeent waaye boo ne Ababacar moom nga ciy teg. moom dafa sax faf dafa sax faf euh, dafa sax faf tàggoo xelam jël jaasi ni ku ni Muhammad faatu na ma dagg sa baat kii def la Moussa defan deeleeg boroomam xam nga Moussa dafa deeleeg suñu boroom daal di ñëwaat indi juróom-ñeenti alwax alwa yooyu te tubaab yi suyoo ko film di ko tuddee le dix commandement sina ali boroom xam-xam ba moom foofu làmmiñoo mënut wax moom mu lu Ousmane moom euh, lafañ mënut a jóg dox mbir yi non seulement bett na leen waaye mbir yi dafa rëy ak vide biñ ñu commencé yëg ah Aboubacar nag ndeysaan ñëw fekk ko fiñ ko tëral mu daal di muri ah ni ko baarakallahu yow day bi ngay dund da nga sell lool tey rawatina bi nga faatoo daal di koy muuraat day saan waaw bi abi anta wa ummi tibta xayyan wa mayyitan walasi nafsi bi yaddihi laa yasxiquka allahu almawtanina abadan mu daal di wax ni ah, moom abubakar siddiq daal di sant yàlla daal di tagg yàlla daal ni dama ni ku doon jaamu Muhammad Muhammad faatu na de jóge na de ku doon jaamu yàlla yàlla moomu mooy kii dund dund gu amul faatu mukk daal ni eh, aay bi alxuraan wax ni innaka mayyitun wa innahum yow Muhammad di nga faatu de ñeneen ñett dañuy faatu daal di jàng wa maa muhammadun illa rasulun xad xalat min qabli rusulu fa in afa in maata aw xutila in xalabtum ala aqaabikum wa yanqalib ala aqibayhi fan yadurullah shay'an wa yajzillahu shakirin daal di jàng aay Muhammad kat ah am nañu ko fi jiit woon di ay yonent ñoom faatu nañu de moom it day faatu de ndeysaan saaba yi mel ni aay bi xamuñu ko woon mel ni dañ koo fàtte mel ni mi ngi soog a ñu daan dellu si waat nag gis nga kon position bi Ababacar wane wan na ni kii nag mat na njiit nag kii nag moom mooy ne ci kanam yàlla dogal ñu laat koy fal mu ne ci kanam waaye amul yëg-yëg ci ni man maa waxan lii déedéet dafa daal di wàcce boppam ñu fal ko ndax awaa ñu koy fal moom joxoñ na Omar gis nga kon waaye bañ ko faleet mu jóg nag daal di wax nit ñi nag sant yàlla daal koy kañ daal di wax loolu daal ni ayuha naas fa inni qad walitu alaykum walastu bi xayrikum ah yéen nit ñi ah falees na ma de ma ne ci seen kanam waaye gënuma leen fa in ahsantu fa ainuni su ma rafetalee na ngeen ma jàppale dimbali ma ci rafetal googu wa in asatu fa qawwimoo su ma su ma su su ma dëngalee na ngeen jubbanti mbokk yi ku ñuy fal nga war a jiite ab état nga wax te li nga wax moo na ci yow dañ laa fal ba noppi nga jóg waaw am na lu ñu koy tuddee fii bu dee ci noonu ñu ni président bi ñu faral ko tey moom mooy def xaw ma ah, prêté de serment xaw ma su ko defee ñu dem fu yaatu état wala fenn. su ko defee mu yëkkati loxoom daal di wax ko mu eh, je assure nangam waaw maa ngi giñ ah xam naa koo giñ de nañ ko bàyyi noonu rek waaw xam nga bu waa ji ne maa ngi giñ ni giñ naan dutuma ko def ah yow foo giñe billaahi wallahi tallaahi kay tuddoo ci daal waaye giñ naan dutuma ko def rek wala ah diw nuyu la xam naa loolu dal war nañ koo xalaat ba xam ndax nuyu nga ko nee ko asalaamaaleykum diw nuyu naa la amul la fay naa la rek kon Aboubacrine daal di wax wax ju wax ju rëy jooju est-ce que suñu njiit yi ah est-ce que ñu ngi wax li su ma rafetalee da ngeen ma dimbali mooy buur bi jub na jiitu réew lu jub ngalawaay kum fal jubalal kim falul yow ñu war laa jiite yow jubalal ndax fa nga nekk am na lu ñuy tere ci mbedd mi am na luñ ca santaane def ko fa nga nekk ca marché ba noonu fa nga nekk ca tool ba fa nga nekk su ko defee réew mi daal di avancé waaye nag bu wañ ga bañee ca mbañ jaxaan nga moom dara du jag anarchie faw daa dong mooy ne ci sunu telee sunu rajo yi ak sunu journaux yi ne ci internet bi waaw juróom ñett ñetti téeméer yu bis yi ak juróom benn fukk ak juróom yépp fawdaa rek fawdaa kese rek dëgg yàlla lu ñëw gën a yées mu ni leen asidqu amaanatun wal kasdibu xiyaanatun gis nga lii di dëgg te na mooy amaana moom mooy kóoduteef waaye fen nee na ak war la de kon mi ngi leen di tere ñaar yooyu mi leen di diggal benn bi di tere benn bi boo ci def rek safaan ba nga daan lay daw ni képp ku néew doole ci yéen da ngeen xam ni euh, day day daal di doon ko am doole fii ci noonu kon ndeket lu fekk rek ñi am mu ànd ak ñoom lëkkoog ñoom ñuy am ba faw faw way néew doole di déedéet moom moom moom moom safaan ba lay def gis nga ko walxawi fiikum daifun indi ku ci naw boppam ku am doole ci yéen ah bu ñëwee fii dañ ko yemale rek mbokk yi waxtu wi jot na dinañ ko wéer incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوتني به نفى ما أنفني wa